como interpretado äh, ñu ngi leen di nuyu di nuyu sénégalais yi ñuy seetaan di remercier FRAPP ci initiative bi ñu teg tey pour rassembler au moins ay sénégalais yoo xam ni xàmme nañ leen ci xeex injustice pour ñu ñëw waxtaan ak réew yi sama mbokk yi jàll léegi wax nañ ko ku comprendre lu nekk ci xelu Macky doo comprendre li xew yëpp parce que ñoom dañuy xeltu di xalaat même bu fekkee seen xalaat yi dara baaxu ci yaakaar ne lii ñuy def nii résultat bi ñu bëgg dinañ ko am mais apparemment ils ne retiennent absolument rien du du passé au-delà de l'histoire politique et citoyenne du Sénégal amul dara luñ ci retenir bu ngeen xoolee et je commencerai par par cela parce que y a la presse là et dañu bëggoon solidariser wu avec Walfadjri li ñu def acte bi ñu posé au niveau de Walfadjri en coupant son signal ce n'est pas un acte anodin ce n'est pas lié seulement à l'histoire de Mbacké non parce que Macky ñaar la xam moom a nguuram dañ lay jënd nga nangu ñu bëgg la jënd nga bañ ñu teg la doole te Walf Fadjri dafa am lu muy représenter dans la conscience populaire des Sénégalais dañ ko tuddee télé askan wi Walf Fadjri mooy c'est c'est c'est c'est un média de masse et j'en profite vraiment pour rendre hommage à Sidi Lamine Niass fa mu tëdd yàlla na yàlla yàlla yokk leeram moom dafa waxoon ligne de masse la yor Walfadjri ligne de masse boobu la yor informer vrai ñu jaay ko doole couper signalam parce que tout simplement Walfadjri nanguwul bokk ci cette certaine presse on ne parle pas de toute la presse le camarade Guy l'a di tout à l'heure une certaine presse qui est assise et soumise au régime de Macky donc ñuy woo sénégalais yi nag vendredi samedi dimanche am na plan d'action boo xam ni Walfadjri teg na ko diwoo woo Sénégalais yépp ñu génn ñëw participer ci plan d'action boobu parce que Macky Sall lépp luy leeral bëgg ko te Walfadjri dafa nekk ci optiku ubbi xelu sénégalais yi ubbi seen xel pour li fi xew ñu jël ñoom seen liggéey rek lañuy def defuñu leneen donc ñu woo sénégalais yi ci loolu beneen mbir bi le camarade Aliou Sané la l'a dit tout à l'heure tout est lié au troisième mandat presse bi ñuy jéem a jënd ñu nangu ak presse bi ñuy jéem a xoqatal c'est parce que bëgguñu effectivement ñu participer à à à lever des consciences beneen bi ñuy cibler ay nit ñoo xam ni dañ leen a ràññee ci xeex injustice le camarade Hannibal Nyim est en prison ou bien en détention je ne sais même pas te deful absolument rien bi ñu ko jàppee ba léegi ut nañu ñett ñeent wala juróomi élément pour dugal ko bi ñuy jëkk lu ñu wax benn vidéo lañ doon seet mu jógi ngi ne Copper Express mais Copper Express Express Hannibal mu ngi ci kaso yi ubbi nañu beneen lien barki démb ban lien la am ak moom et puis Copper Express c'est une société qui qui qui qui est légalement constituée et qui fait activités financières c'est comme nga jëm tey Hannibal doon doon doon wax chaque jour rek benn lien banque xaw ma SGBS par exemple ah ku bëgg ku bëgg lii nañ nañ nañ fa jaar ñu ne non donc Hannibal il est actionnaire même il se cache même derrière la derrière la SGBS xam nga loolu mooy caaxaan yi donc ñu ne nañu jàpp képp koo xam ne xalaat nañ ne rek au-delà de la presse après mën nga participer à l'éveil des consciences parce que yaa ngi ci xeex bi contre l'injustice et yaa ngi ci xeex bi pour rendre la démocratie solide dans ce ñu jàpp ko dama dégg Macky Sall tey ci benn journal boo xam ne du def publicité mu ne je ne laisserai jamais détruire personne détruire le Sénégal je pense qu'il n'a absolument rien compris ñun ñoo ko dul bàyyi mu détruire Sénégal il n'a pas compris ci ci xeex boobu lañu nekk nee naa sànq il n'a retenu aucune leçon du passé en mars 2021 ñun ñu nekkoon fii yëpp ñu woon ci kaso bi est-ce que tere na sénégalais yi la ñu waroon def ñu def ko sénégalais yi ñoo xeex xeex xeex ba ñun sax tey ñu toog fii di waxaat en mars 2021 les mêmes causes nag dañ koy wax Macky Sall produisent toujours les mêmes effets li muy def nii mu amoon en mars 2021 moom lay def actuellement nii et ce sera exactement la même chose qui va se reproduire parce que mars 2021 ak léegi énormément de choses se sont passées sénégalais yi parce que nee na mars 2021 Covid bi la Sénégal dañoo sonnoon les jeune bon les jeune euh, n'avaient pas d'emploi donc ils ont montré leur frustration sur le terrain loolu la waxoon. kon de bu yow mu xam ne encore une fois la amoon en mars 2021 dina tripler wala mu quadrupler parce que tey la Sénégalais yi gën a so la nit ñi gën a ñàkk mën a faju tey la ñuy gën a sàcc suñuy milliards donc toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour que le Sénégalais yi bañoon en mars 2021 ñu bañ ko en mars 2023 et mais tout est lié au troisième mandat loolu ñëpp xam nañ ko pourquoi Macky Sall veut éliminer ses adversaires politiques les plus tenaces le frère Alioune Alioune Sané l'a dit tout à l'heure opposant bu wax ñu jàpp tëj manifestation sax mënatoo ko def Sénégal installé cellule sax cellule nga xam ni da nga daan toog sa buntu kër installé ko léegi mënatoo ko boo toogee police ñëw tas ko pire que ça boo buggee tegu ci yoon déposer sa lettre d'information parce que il faut que loolu aussi au Sénégal ñu respecté ko ñu wax ko la constitution ne parle pas d'autorisation on fait tout simplement une lettre d'information pour que la puissance publique puisse prendre toutes les dispositions pour encadrer ces manifestations la mës ngeen dégg benn manifestation bu société civile organisée bu opposition organisée mu pare mu am xeex wala xuloo musu leen ko gis au contraire ñoom ñooy daje di dóorante di reyante te dara du leen ci fekk et je me demande même ñoom est-ce que seen manifestation yii ñuy organiser est-ce que ñu ngi déposer les lettres des lettres d'information parce que moi je parle de lettres d'information on ne doit pas déposer des demandes d'autorisation c'est contraire à, la la à constitution <coughs> donc manifestation sax Sénégal mënatoo ko def parce que waa ji bëggatul gis ñaari ñetti nit yu dajale contre lui il a une peur bleue contre ça et pourtant des gens en 2011 se sont battus pas pour lui c'est que loolu il faut mu xam ko les gens se sont battus pour que la démocratie puisse perdurer dans ce pays les gens se sont battus pour que la justice donc soit une réalité dans ce pays moom moo doon wax ngeen dégg ko mu naan la patrie avant le parti loolu la doon wax moom moo doon wax ne faluñu ko pour muy tabax ay tali moo ko wax faluñu ko pour muy tabax ay pont nee na dafa ñëw pour rétablir l'état de droit faisons l'évaluation bi Macky Sall ñëwee ak léegi naka la état de droit reculé dans ce dans ce pays dañ waxante dëkk ñuy wax nag dara ku artuwul dinga nga àtte jël na yaakaaroon na ni mën na jël benn psychose teg ko ci population yi parce que bu ngeen xoolee ñoom dañu xalaat ni yeewu nañu mais yeewuñu parce que ils l'ont fait exprès di exposer seen armada c'est la première fois que je vois un président di menacer sa population exposer armada di fuiter ay recrutement de gendarmes et de policiers yaakaar ne loolu sénégalais yi da leen di da leen di da leen di ragaloo mais je pense que Macky Sall ba léegi ndekete xamul sénégalais yi ba léegi xamul Sénégalais yi c'est pas parce que moom dafa ragal kaso ba dem laaxatu ji Touba di jooy ne buñ ci jàppul daf may tëj moom dans sa tête il pense que seule la prison peut faire peur aux gens ñun ñi ñëpp on a on a fait la prison ñu fi toog ñëpp. Guy Marius Sagna mu ngi wax Cheikh Omar Diagne léegi naan ko bul tekki sa bagage parce que ñun kaso dañ naan lañ lay woo Guy Marius nga ne wii ñu leen takkal sa bagage mooy da ngay génn ñun ñëpp suñu bagage bañ ko takkee. indi ko tekki ko ba léegi ragaluñu kaso cest à que kaso sax mooy ndeysaan di gën nooy ci ñun ñii donc il n'a pas compris que ni sénégalais yi dépassé nañu stade boobu nañu xeexee depuis 1960 jusqu'à maintenant pour qu'on ait un Sénégal de paix et de justice loolu moom la ñuy continuer di xeex nous ne le faisons pas contre qui que ce soit keneen ku nekkoon à la place de Macky di def lu muy def même xeex ba ñu xeexoon moom la ñuy xeexaat donc na xam ne li muy def nii ça n'aboutira absolument à rien et nous appelons tous les Sénégalais tous les Sénégalais à se préparer pour lenn rek de façon démocratique nag la ñu wax parce que ñun nag quand même kenn mësuñoo gis ñu jalgati yoon kenn mësul wax fii frappe jalgati na yoon kenn mësul wax fii que les partis d'opposition jalgati nañ yoon doo ko gis kenn mësul wax fii la société civile jalgati nañu yoon kenn mësu koo gis mais li ñu bëgg à partir d'aujourd'hui il y aura un large front gars yi wax nañ ko pour dire non d'abord hein, à la troisième candidature parce que man pour man troisième candidature ce n'est pas l'affaire des partis politiques non non non bu kenn juum c'est l'affaire des populations du ñun c'est pas les partis politiques souvent les gens disent oui parti non non non xeexuñu troisième mandat duñ ko xeex dañ ko xeex en tant que parti politique mais moi Abass Fall en tant que sénégalais damay génn ci mbedd mi xeex ko. c' est l' affaire des sénégalais ce n' est seulement l' affaire des populations c' est pourquoi nous saluons le travail qui est en train d' être fait par le coordonnateur donc donc du mouvement Y le frère Alioune Sané pour mobiliser toutes les forces vives de ce pays. képp koo xam ne xalaat nga ni Macky Sall fu muy jëlee réew mi d' accord ci na nga taxaw wax ko maintenant dootuñu nangooti. ñuy jàpp nit ñi di leen tëj ci lu dul dara parce que nit ñaa ngi toog di seetaan mais injustice mooy indi soulèvement mooy indi révolte ñii ñuy jàpp di leen tëj seeni njaboot yi nekk ci njàqare dootuñu ko yi c'est pourquoi il faut se mobiliser à partir de maintenant la manifestation pour la libération de Nit Doff sera un prétexte pour exiger la libération de tous les détenus politiques qui sont entre les mains du dictateur Macky Sall loolu il faut que mu leer na ci nit ñi taxaw parce que tey ñoom la mais peut-être yéen ñi ci biir nii am na seen benn mbokk journaliste boo xam ni le 2 février mu ngi ci kaso bi. Makhtar Cissé ñu jàpp ko ñu yóbbu sa carte de presse parce que gannaaw ñu ne ko non mu ngi ci kaso bi tey lañ leen war a jugé loolu fan lañ ko teg. les gens n'ont même pas le n'ont même plus le droit de faire le travail convenablement donc gis nga bu ëllëgee yéen la bu ëllëgee ñun la ñun moom def nañu suñu baptême def feu ba pare on est déjà vacciné bu ñu delluwaatee c'est comme en pèlerinage la ñuy dellu mais il a d'autres yoo xam ne ils sont en sursis ñu nekk ci réew moo xam ne nag 17 millions de sénégalais. ah sont en sursis par la seule volonté du président Macky Sall di dit que bugguma dégli bugguma dégg dañuy wër ci page Facebook yi sax di ko étudier nànk-nànk di xool benn mot benn mot boo xam ne mën nañ ko utiliser contre contre toi le Sénégal fu mu toll nii est en arrière sur le plan démocratique le Sénégal aujourd'hui est en arrière en, sur le plan donc de de de de de, de la justice Sur le plan du respect des droits humains le Sénégal maintenant est en lépp loo xam ni xeexoon nañ ko muy ay ay mu nekk ay acquis démocratique ñu amoon ko actuellement ni Macky Sall mu ngi koy salfaañe te te te duñ ko te duñ ko nangu. mooy wax beneen affaire Guy Marius Sagna wax na ko léegi ragal mooy xeex. di wax ka muy xeexal ne ko maa ngi ñëw xeex ak yow booy xeex nit non doo ko ne maa ngi ñëw xeex ak yow ñii di wax naan xam nañu suñu domicile yi ñun fi ñu dëkk man wax naa leen publiquement fi ma dëkk chaque jour nag maa ngi leen di xaar waaye ñun tamit xam nañ fi ñu dëkk l'équilibre de la terreur ne marchera pas ici personne fii ci réew mi mënul fexe ba ñun xoxatal ñu ñu ragal ba dellu ginnaaw bu dee réew mi amul yoon nañ ci dem mais ñu ngi leen di xaar ay jullit lañu dañu am diine xeetu diine yëpp a ngi fi amul benn diine bu recommandé ngay toog ñu dal sa kow diine boo gis nee na ku dal sa kow fayul waaye booy fayu fayul à la hauteur de ce qui t'a été fait ñoom Cheikh Omar dinañ ci ñëw tout à ñun nag ay jullit lañu te au-delà de des principes démocratiques suñu diine lu mu ñu may dañ koy jël. te incha allahu rabbi ñu ngi koy wax encore tey di ko wax à à Macky à son régime à tous ces gens là qui s'activent yaakaar ni qui nous suivent chaque jour ñu ngi leen di gis nous suivent chaque jour. à ces nervis qu'il a recruté à l'appel xam nañ leen ñoom ñëpp xam nañ leen que lépp lu ñu yoon may dinañ ko def ñu ngi ñaan nag suñu mbokku takk der yi. ñu ànd ak xel nañ def seen liggéey ànd ak xel gis nañu ay xale yu topp ci cortège yu leader ñu leen di jàpp di leen di dóor nañ ko bàyyi c'est pas normal. boo demee seen i doom si biir ñu ngi ci on a vécu une expérience douloureuse ici bëgguma ko évoquer fi ici dans une prison fii njabootu kenn rëccul am na ñoo xam ne xamuñu sax ne seeni doom ñu ngi ci fuul yi fii li ñuy tiire ay grenade lacrymogène nañ def nànk ñu leen di ñaan ñu ànd ak xel Macky Sall jaru ko ils sont payés par l'argent du contribuable sénégalais suñu xaalis lañ leen di fayal matul sax chaque jour à l'Assemblée nationale Guy Marius Sagna di leen di ko kaas di ko kaasaat soixante-quinze mille quatre-vingt-dix mille leen di fay te bu ñu gaañoo duñ leen faj ñuy jël ay sénégalais comme ñoom di leen dóor jaru ko nañu def seen liggéey buñ leen bu leen bu leen ko santé mais pas de la de de de de cette de cette façon di wax ak cette justice la ne leen j'ai vu tout à l'heure la ligue des imams et des oulémas def benn benn benn communiqué ñu ngi koy saluer parce que li ñu wax dëgg la nee ñu Macky Sall ñi ko wër nekk des va bu ñu ko topp nee ñu Macky Sall bu ñu bëggee réew mi dal justice ak administration territoriale nañu def seen liggéey comme ni ñu ko war a di nañ ko war a defee dans l'équité loolu moom mooy tax ñu xeex leneen taxul ñuy xeex ñii fi nekk ñi dañu am ay jabar am ay doom am ay yaay chaque jour ñu woole bul ci dugg bul ci dugg bul ci dugg mais da nga ciy dugg sa liggéey sax bàyyi nga ko pour lan parce que réew mi réew mi buñ ci jugul suñuy doom suñuy sët dinañu dund ci réew moo xam ne bañ cee dund sax moo gën donc balaa ñuy egg foofu ñu ko xeex di woon ak sénégalais yëpp ci jàmm jàmm lañu bëgg mais nag di nga toll foo xam ne mus sax boo ko tëjee ci néeg topp ko di ko dóor di ko dóor daax ko mu dugg ci néeg tëju mu dugg ci néeg bi ak moom di ko dóor mu wëlbati ko dal sa kaw.